yëkkati naa coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax yàgg naa ko wax wal fu ko ñee naan maan lii la Ousmane Sonko def turbine yéen a kaay ko déet moom Ousmane Sonko kay nangu na dogal daal di jël Bassirou Diomaye Faye nag daal di na copp ci kanam ne ko doxalal yow Bassirou Diomaye Faye doonal sama candidat yéen a kaay bi dee média bi naan man gannaaw bi nga xam ne sa dayaawoo gàntal nañ ko ëttuwaatekaay bi gën a kawe fii ci Ndakaaru daal di koy gàntal moom Ousmane Sonko nag daal nay jiital Bassirou Diomaye Faye 24 heures yéen a kaay naan koon moom Bassirou Diomaye Faye la ñu jiital wala it lëndëmal la en tout cas Biram Marius Sagna Abbas Fall ak Malick Ndiaye ñu jëloon fiche nee ñu nag waxtaan nañ seen biir daal di ciy déggoo Ousmane Sonko la ñu dogal moom moo di léegi Bassirou Diomaye Faye mooy seen candidat Vox Populi naan maan ni ki tey ci altine gi la ñuy tàmbali nag raasaatu parrainage yi Tribune yéene kaay naan kon coow la kay moom moo di Bassirou ci boppam mi ngi ci loxol yoon Source A naan kon te daanaka li ñuy toppee Ousmane Sonko lépp ñu ngi koy toppee Bassirou Diomaye fay juróom ñaar ci loo xam ne ñu ngi koy toppee Ousmane Sonko moom Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko koy outrage à magistrat waaye tam diffamation yuñ koy toppee maître Ousseynou Gayne en tout cas lu coow li bari bari moom Bassirou day bu nu tàmbalee atteem ci réew mi fii ak élection présidentielle yi di jeex ma ne la recours yi du jeex te tant que condamné wuñ ko définitivement mënuñu ko teree doon candidat ci réew mi waxtu woo 24 heures yéen kaay di ma xamal ne moom gëm sa bopp day ma ngay doxal ci réew mi moom it daal di soobu yàgg na ci parrainage tribune yéen kaay naan ko déet ab machine de guerre kay la coalition gëm sa bopp daal di teg ngir fas yéene nag ñaabar ñaabari wuti ba l'évidence yéene kaay naan kon ci ruq si wala it ci terrain bi jàpp leen ni coalition gëm sa bopp daal ma nga ca biir parrainage ba te lu toll ci ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom-ñeenti junni ci parrain toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk daar daar daal di leen koy def ci seenu gafa turbine yéene kaay naan kon ñoo yey ndax ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ci facilitateur lañ daal di tasaare ci réew mi daanaka commune bu nekk ci réewum Sénégal ab facilitateur am na fa wala ay ñu fas yéene ñaabar nit daal di soobu ci askan daal di teg lu toll ci ñaari téeméer juróom fukk ci photocopieur ñaar fukk ci L200 ñaar fukk ci ay L200 double cabine gay original naan dara laa ni la coalition Bougane Gueye Dany bi bàyyi ko ginnaaw ngir nag mën a collecter parrainage bi te xam nga ne nag moyen yi boo ko defee ci parrainage lii leer la na ni bi moom bu ñëwee da ngay daal di xattar bi ba biir weex daal di teg suuf moo tax it daanaka juróomi téeméeri junni ci parrainage mani la moom coalition bi daal dina koy matal daar daar fas ko yéene teg ci table yi war a ñaabar ñaabari nag uteeg moom présidentielle yi la naan lay jeex na tribune yéene kaay naan maan ren jii ren jii day lay jeex na ci coalition gëm sa bopp Dakar Times daal dina si Cissé coow li moom moo di nag lan nag la fas yéenal njiital Senelec bu yees bi yéene kaay bi naan maan ba ñu ko dàqee ak tey ñi ngi njortu ne mi ngi jël ay xeer di jor ci ginnaaw directeur bu yees bi te lii dafa gën a firnde gannaaw bi nga xam ne waa Sudeten di syndicat Senelec bi daal na leen di dalal ci pale bi ca waxtu woowu ca ngoon ñu def conférence de presse bam leen di dalal ngir xool doxalinu Senelec woowul directeur général woowul Antoine Diome mi nga xam ne mooy ministre de l'énergie coow la moom moo di nag lan la Makhtar Cissé mii naral Senelec critique yéeni kaay naan mandal na président Macky Sall naral askan wi Sall ma ne la lu ko waay ñaan ci coowal Ousmane Sonko lii lankal na la ko képp ku bëgg def médiation président Macky sal nee la demal nga toog la ma bëgg ci réew mi moom faw mu am tribune yéeni kaay naan man président Macky Sall daf caa boole kay du xupp ñeenti weer dese ko ci nguur gi moom Sall ngaari lam tooro buur gede ma ngay xupp gaa yi di leen wax ne du ma maye dara président Macky Sall ci tribune yéen a kaay naan coow lay bari rek waaye dara laa la duma ko maye réew mi moom jàmm rek moo fi am l'observateur naan maan moom Sall waxee ne dënn de te la ñu xalaat ne moo tax président Macky sàll mii waxee dënn moom moo di nag wor gi nga xam ne am na ci biir parteem rawatina ñi nga xam ne ay jege ñaaleem lañ moom président makki sàll mu ne leen jëfe leen gars yi daal di lànk tribune yéen a kaay naan maan waxtu waaw nguuru Sénégal day budget bi daal na yokku daana ko juróomi téeméer juróom-ñeent fukk ak ñaar ci milliards le soleil yéen naan maan budget 2024 bi def nañ kéemtalaay kattan ba li nga xam ne mooy bori war a mën a wàññeeku ci réew mi ni ki démb turbine yéen kaay naan maa nattal nan nga fa ministère de la santé ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards ñu daal di koy nattal Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu war a soobu nag ci yenn ci plan d'action war a financer santé waaye tam ay saytu ci wàllu santé gi ay bourse de spécialisation ñu war ko ci amal war a saytuwaat garab yi ministère de la santé xam leen ni lañ leen jagleeloon ci budget bi ñu génn daanaka juróom benn fukk ak ñaar ci téeméer boo jël matale nañ ko laas yéen Gomes Ngom Ndiaye ngay xupp de nee na lu ëpp juróom ñeen fukki école de santé am na ci réew mi te boo leen wàññee ci lim googee lu ëpp ñeen fukk ci l'école yooyee amuñu këyit te waruñoo sax jàngale ab wér-gu-yaram ci réewum Sénégal laas naan maan boobu Aminata Touré mi mee ngay xupp di xam leen ni nañu saytuwaat parrainage bi ci réew mi ndax loo ci manti déggit machine bi ay nit a ko defar te informaticiens yi xam nañ ne machine mën nga koo xool loo fa muy xool mu jëfee la nga bëgg kon nag coow li coow li mooy nañu xoolaat parrainage yi saytu ko mi mee nga naan kon Sénégalais yi ci boppam ñu seetaanee président Macky Sall ak doxalinam day coppite du am ci réew mi Malal Diallo picc responsable ji da caaroy kaw ci libération yéene kaay nan ko déet ku saytu nag président Macky Sall na mu waree Kédougou def ko Kaolack ak def ko Fatick xool ay réalisation Sall ngaar yi xam ne dëgg-dëgg liy doxal Sénégal président Macky Sall ci la teg tànk te li am ci ñetti gox yooyee mënees na ko làmb daj ko ci réewum Sénégal Malal naan loo ci manti déggit Sénégalais yi dañoo war a wër coppiteeg Amadou Ba Mimi Touré ci laas yéene kaay naan ko déet Amadou moom ay waxam dañ ko sax waxul ndax bu dee deuxième tour day am ci élection présidentielle yi moom du ca bokk ci Amadou ci boppam moo la gën a xam ne élection présidentielle yi ñàkk na ko ba nuppi fa yàllaahu tribune sport naan maan ak lu mën a am bu leen fàtte ni Sadio Mané day niki weekend bii daal dinay amal téeméeri sélection ak équipe nationale bu football sunu lamb naan kon lak dëy daal dinay am ndam ci kaw Siteu te ci avertissement yi la jaaree daal di am ndam abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot xibaar yu wér te wóor aju ci mi ak ci bitim réew